dañ ñoo dénk dëkk bi ñu war cee def loo xam ne nii suñu échecgee Kaolack gépp échec li nga xam ni moom lañ ci liggéey mooy yéen ñëpp xam ngeen ne kawlax xar kanamu mu set bi changé na ñun ñoo ko def UGC ko def mairie sax ataala ndax UGC li muy fonctionné Kaolack mu ngi ci am na ci wàll ndax douane douane yi waa Kaolack di fay TVA bi ñuy fay foofu la jëm waaye ñun dañu gis ne bokk moo am solo UGG jaar fii ak ay camion ñu ñu jaar fii ak suñ camion gënul ñun ñu jël lépp jox ko am na yoo xam ne ni danañ ko gën a jàppale euh, koñ koñ kii euh, dëkk bi ci kanam tudd da ngeen gis ne dëkk bi yëpp kenn ku ne maire bi dina xool nu mu mën a def ak yow pour nga am sa poubelle bopp boo xam ne nii ah danga nga man di ca def say mbalit du too ko jël di tuur fenn même bu oto ñëwul loolu tamit xam ngeen ne def nañ ci ak FERA FERA amoon na fi bu yàgg waaye gis ngeen léegi organiser nañ ko ba liggéey mi ngi gën di feeñ gis ngeen tamit Promovilles bi mu ñëwee ni tamit dafa am ay fu ñu war a pavé gis ngeen niñ ko encadré recruter fi ay nit ba tey Pavas mi ngi nii incha allah balaa yàgg danañ ko defaraat ba nga xam ne nii dana nekk ay place yu neex a doxantoo ah, affaire assainissement bi c'est la première fois Kaolack Dakar di di të di lëmb di taa Touba di taa fépp di taa Kaolack taawut loolu nag dafa am équipe bu taxaw boo xam ne ni fu ñu dégg dara ñu dem dindi ko fu ñu dégg dara ñu dem dugg ci canaux yi dindi ko loolu Kaolack amul benn bi yoon inondation loolu dañu cee sant yàlla loolu dañ doy na bilan éclairage bi gis ngeen nasel am nañ ko gis ngeen route nationale bi gis ngeen néegi changement boobu am na ci te incha allah bala ñoo paree Kaolack gépp dana mel noonu am nañ matériel bi am nañ matériel bi ko war a def lépp ngi fii incha allah 100 millions def nañ ko ci éclairage 106 millions incha allah da gis ne éclairage bi dana réglé te gépp koy wax sécurité da ngay wax ah, éclairage bu dee plan euh, soqali bi xam ngeen ne lii ñu def yëpp dafa ànd ak soqali mooy bi ñuy def ay set setal ak yëpp xam ngeen ne ay na ay jeunes yu bëri ñu recruter recrutement boobu tamit danañ ci yokku yokk nañ ci partenariat bi ñu am ak Sonatel boo xam ne ni plus de 300 jeunes recruter nañ ne te 400 jeunes lañ foofu lañ jëm plan sàmm bi gis ngeen transparence bi ñu def budget bi dañ koo wàññi budget fonctionnement bi dañ ko wàññi ndax liñ joxoon préfet 52 pour cent la lañ nekkoon ci investissement mais biñ liggéeyewaatee 57 pour cent lañ dem ci investissement ndax luñ def dañoo sacrifier wàññiwaat fonctionnement mairie bi ba amaat 50 pour cent pour te doon budget bi wàññiku na mais investissement bi dafa yokk te loolu ah dañ koo xool waxtaane ko ba am ci loolu fond fond yi nag fon yi tamit des na bi fi Mariama Sarr di jóge wax naa leen ne lim bàyyi woon milliard quatre cent la ay marché la yoo xam ne nii signé woon nañ ko mën a mooy stade municipal yëpp mais ñun tey li ñu amaat tey deux moo nekk suñ kees ak un milliard cent cinquante yoo xam ne nii pakesen moo ñu ko jox te yaakaar naa année passée sept cent et quelques joxoon pour te montrer que li nit ñi di wax pakesen pakesen suñ performance année bi yokkuwaat na sept cent millions la ñu amaat bii ñu am un milliard cent naa am déwén suñ liggéeyee liggéey bi ñu bëgg ñu am lu ma deux ak liñ mën a defal loolu mooy plan sàmm bi ak fiscalité bi ñi ngi toog ànd nañu ak direction des impôts ñi ngi dox ci problème litige foncier yi fi am yépp ñu mën koo régler may leeral rek ne collectivité locale démembrement de l'État la li ñuy ñaan préfet mooy lii mënoon nañu ko éviter mooy ba ñu ko yónnee budget bi 15 jours avant bu ko càmmaroon cinq jours loolu nag dañ ko ko ñaan xam naa xëy na loi bi may na ko sax mu bañ a wax dara muyaa bi may na ko buñ ko joxee mu xaar quinze jours ton loolu lépp xam nañ ko un mois la waaye bu pour jàppale pour ñu mën a liggéey buñ ko ko yónnee te ci cinq jours yi bu amee luñ ciy xool mën nañu ko wax kon bu boobaa tey jii gañe nañ ci lu mat un mois boo xam ne nii intérêt waa Kaolack la da ngeen gis chantier yi démarré kon nag ñun amuñu benn problème pour revoir suñ copie bu fekkee loolu moo koy réglé loi bi mayoon nañu bu ko yónnee d'accorduñ ci ñu dem yóbbu ko cour suprême mais jaru ko ndegam liñ ñu wax ñu def ko suñu intérêt la def nañ ko ñëw nañ ci voté ko espérant que danañ ko approuvé te amul benn problème kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm leen gërëm yéen ñëpp ki lay defal lu baax mooy def léeg-léeg lu ñaawteef mais man aw ma dara lu may rapproché presse presse bi même lii jotoon a génn génn amul benn problème da da ngeen koy dañ koo yéex a jot sax waaye ñun ñoo ko waroon a njëkk a génne et noonu lañ bëgg a doxale ak yéen ci kanam tuuti dana fi am bureau boo xam ne bureau presse lay doon da ngeen fi mën a ñëw liggéey fii da ngeen fi mën a ñëw fekk fay information mais entre temps dañ leen di ñaan bu amee information rek ngeen laaj ñu wax la maire bi du maire bu Serigne Mboup fi laa ko fekk filaa laa koy bàyyi fi ko keneen di bokk fekk du maire bu Serigne Mboup du maire bu président Macky Sall du maire bu kenn maire kaw la tànk Kaolack ngay exercer maire dina fi am maa ngi leen di gërëm leen sant jërë ngeen jëf léegi nag dama leen di ubbil question yi buñ paree ma jox madame Tall mu lire ko en français ndax ñoom ñoo dégg tubaab ah